wadom le jiranik namnal yang am jambu ba ah jank namnal bayin ga sodom da electoral duyo ah namnal trop wa harit a ah, domandai koy bayi sa domandai tamit sumal bayi fu may japp ha nañ wante deug yow kan yama ofta yi si lo nek nak nako muna muna la de mm jank it bi ma envoyer message ah ba baxna ba jam la rek hmm yow mii waa baax na <laughs> ah xarit nag xarit nag yow ma teg danga ma teg genre taxawaalkat yooyu tamit nag defu ma loolu sax damaa dem resto rek dem xa tuuti rek nekk ak sama xarit mooy loolu da nga toog kër gi rek mooy loolu des fois da génn tamit mooy loolu daal loolu rek la may du leneen xam nga temps yi tamit sëñ bi nekk fi foo jar may génn di changer air mooy loolu tamit di xaw dund air pur tuuti tëju bi moom mooy loolu il faut ngay génn tuuti nag di xàppi Hmm, xamoon naa ko xamoon naa ne doo toog sa kër jaaxal nga ma hmm, tey kan nga àndal dembala wala Samba hmm, yow jaaxal nga ma de jànk ah nit kuy sëy toog day toog nekkal ci place Moodu bu fekkoon Moodu moy def lii a ah, jànk du la neex de su ma soñoon nag nga wàññi nii ngay def falaayam nag. ah xarit nag instant bi nag yaa may jugé yaa may jugé te xamuloo dara yow loo ma lan nga ma xamal man dama fee nekk ñu may jox sama xaalis may jël duñ ma jox dama koy lekk dama koy consommé sama ñàkk jug dong laay jël def ma dara lu aay ñoo may jox may cons yaa ngi may jugé man lan moo ma leer na yow sax defoo ni man ah fii ku nekku ci guddi bi bu gàtt bi mami sama jaam. yow jëng man ngay waxal de man dégguma alxayri déglu ma kaay yey guro yow nag ko dégg te man ni nga mel man meluma ko tey yow yaa ngi fii suba yaa man jànk fi ma toog laa toog de awuma ci mbedd yi ñu may joxañ tamit régler borom ci kër nga. yow defal ndànk sax defal ndànk yow lan moo la leer que ni moo du fee mu nekk moom nekk fa ak ay di def lu ko neex a ah, lan moo la ci leer ah xam nga na laa bëgg sax nañ teg wax jooju noonu man daam leneen lu ma la war a wax yow tamit. <laughs> yow doo wàcc de yow yaa ngi Moodu da ngeen di benn Moodu di góor ngay jigéen Moodu nekk julli am droit am quatre femmes. ngay tok nan ku la wax ni Moodu deful li wak deful la te yow sa yaay tay su yëgee li yow lan ngay wax jank bet nga ma jank wàññi sa gàllaaj ñu jam la de yow tay ji yow Moodu so xamee ne yow ne ko jank yow lan ngay def ak sa parañ parañ ji yow war nga wax wala nag jank jank ci loolu la la bëggoon wax yow tamit loolu la la bëggoon wax instant bi xam nga Moodu dafa war a te instant bi xam nga tamit man je ne suis plus vierge léegi nag dama lay laaj pour ma jël produit yooyu pour ma nekkaat vierge mooy loolu ndax moo de instant wax na ma danay ñëw kaa bu mu ngi critique de jàng jàpp ci boo ci jàppul rek du baax kon yow yaa ngi doog a sóoraale ñëw moo du yow <laughs> kii du yow yaa ngi koy doog a sóoraale <laughs> sànq li nga wax say ma maa ku nekk si yoon bu gudd bi rek yaa ngi si bu gàtt bi man de am naa ndaw man am naa ndaw wuteeg yow yaa ngi nii tey nga soxla ko <laughs> moo tax nit da ngay sóoraale ëllëg nit da ngay sóoraale ëllëg bala ngaa def dara. jàng da nga nekk sama xayit ma gis la def leen ni sama bopp ma am sama problème yaakaar ne su ma amee problème war naa la ko tiis nga fajal ma ko loolu doo nga tax bu fekkee mën nga ma ko defal nga defal ma ko boo ko mënul def tamit nga wax ma rek mo xool sa morom mu defal ma ko. te tamit nag sama dund la sama dund la day mën toog mënut mu dem am na ñeneen ñu fi nekk ñuy topp sama ginnaaw ñoo xam ne ñoo ko ëpp xaalis ëpp ko daraja suut ko lees nag teg ci day mën muñ toog mënut mu dem keneen ñëw bata dem bata koste rek man mos maa ngi fii toog ñu mu bëgg bàyyi nañ xam nga yow sama xarit ga hmm? xaw ma nag loo bëgg a def comme nee nga bata dem bata koste <laughs> kon baax na kon joru nga ci sonn xarit joru nga ci sonn de sa gëm noonu nga ko gisee baax na loo def rek ci yow la jànk man instant bi dama jaxasoo xawma lan laa war a def lan laa war a def daal xawma ko instant bi daal leen laa gis comme solution dem ci code moom waxoon ne ma ne am na fu mu dem bañ jox ko instant bi moom tout est impec l'instant bi moom elle est devenue dans l'ordre mais foofu laay dem moom mu wax ma ni mu def man ma def noonu comme ça ma viageat loolu de laa gis comme solution ma man jigéenu léegi jaaxal nañ ma jaaxal nañ ma lool sax waaye du si de góor ñi la rek la góor ñi kese ñoo leen koy def pare bàyyi leen fi waaye nag jànk ba wax la leen roy dunduroog piir de roy dunduroog piir